Euh, mais du nit dof rek moom ak euh, ñeneen ñoom Fadilou Keita ñoom Bassirou Diomaye ils sont à peu près presque deux mille mm. euh, ñoo xam ni dañ leen a jàpp de manière disons excessive mm. hein, de manière très excessive donc bu ñu demee ba lii am dañuy mm. njëkk sant yàlla bu loolu wéyee tamit di ñaan yàlla ña fa nekk te defuñu dara tey rek ñu ngi may wax Tivaouane Peulh gi ma demoon benn booy boo xam ni ci événement yi ba mu amee. Hmm. moom sax bokkul woon ci événement yi ambulant la woon toog di jaay. Hmm. Euh, mais ba coow la bëree gaañay daw comme moom dafa takkoon. Euh, bracelet Pastef. Ah. ñu ñëw fekk ko fa rek yóbbu ko quoi. ba léegi nii ba tey te moom la lendemain ca la waroon a ngénte comprendre donc euh, nettali nañ ma ci ay cas yu baari yoo xam ni daanaka ñëw manifesté wuñu woon sax. Hmm. dañ doon toog di góorgóorlu fa ñuy góor góorgóorlu mais la leen yóbbee seen euh, ñu jàpp leen. Hmm. mooy rek dañoo takk bracelet kii bi. ou bien ñu voilà ou bien ñu laaj leen seen tur ñu am sant bi waaye Casamance. Hmm. ñu ñu leen di jàpp kon donc am na ci ñu baari ñoo xam ni. Euh, ay la yoon defuñu dara wala boog même bu ñu defee. jaaduwul ñu toog fa jaaduwul ñu fa toog parce que le droit de manifester est droit constitutionnel euh, ci ba ñu waxee kilifa ga boobu mooy ba Ousmane di grève de la faim waaye kilifa diine ji hmm. li mu waxoon ak euh, kilifa gi euh, bañ daan wax naan Ousmane na bàyyi grève bi lañ ca laxasoon hmm. mooy su bàyyee grève bi dees na ko bàyyi ba kilifa ga ñaari kilifa yi. ñoom loolu nañ tënkoon. léegi nag Ousmane génn na ca grève ba. lu yàgg euh, te loolu amut. ba tax sama béy bi xamal na ma ni. waaw kilifa googu. waaw contacté war na beneen kilifa ga nekkoon lañ waxoon de euh, mel na ni boobu ba léegi euh, nekkut. te comme dañoo amoon benn précédent. mosoon nañoo wax. waaw nga wax ma. Hmm. ma ma ma def. Hmm. yow it wax la nga waroon def defoo bugguma mu nekk ñaareelu suñuy kàddu du jiwoo daal. Euh, comme bañ ca tollee yéen sàkk woon ngeen ni loolu mën naa nekk. Hmm. waaye pour mu mën a nekk il faut mu génn ci grève de la faim bi. te génn ci grève de la faim bi kon donc ñu ngi koy déglu. waaw kilifa gu mag gi moom. Hmm. Euh, kilifa diine gi xamal na ni kilifa gi ne ko daal bul ma nax ñaari yoon. waaw léegi nag. waaw comme yëf yaa ngay demee noonu. Hmm. nañu yaakaar ne au delà de nit dof lu bari dana ci topp daal. lu bari dana ci topp. bari dana ci topp nañ ko nañ ko yaakaar quoi. Hmm. waaw war naa mën a ne de. bi la yoon du mel ni comme yaa woon. Ah, waaw annoncé ko waaw. Euh, waaw mais en fait boo ko dee xool peut-être ñoom loolu seen waxtaan la. Ah. mais boo ko dee xool ci plan juridique. Oui. rien n'impose euh, ñu jàpp soo ko di koy tëj parce que moom ca la ñu ko jàppee ñoom la wax. Hmm. mooy affaire insurrection. yooyu yooyu ci affaire criminelle yeeg yooyu. ñoom commencé guñ sax instruction mais yoon euh, dafa wax ni soit. Hmm. Euh, da nga koy jàpp jàppandiku. Hmm. Euh, mooy détention préventive le temps pour que mu bañ laa rëcc. Hmm. le temps que ngay lijjanti li ngay lijjanti nga dem àtte ko. Hmm. mais yoon daf la ni nag su fekkee kii moom mënu laa rëcc. mënu laa rëcc. Euh, jaratul détention préventive. war nga hmm. ko mën a baax te ay la yeween Ousmane ko moom euh, mënu leen a rëcc. mënu leen a rëcc. waaw kon donc pour man su fekkee même résultat ngay am. da jël. ci principe juridique sax droit pénal hmm. da ngay jël euh, la loi la plus douce ah kon donc du point de vue juridique ni yoon mayee ñu def détention préventive noonu la yoon mayee aussi ñu def liberté provisoire hmm. et puis heure bu ñu ko soxla ñu ba ñu dajalee seen preuve ca la ñu koy toppee hmm. bu ñu amee preuve ni moom la ñu daal di tëgg seen procès est-ce que kon donc pour man ci bu fekkee li fi mu jee xew. moom hmm. lañ ko bëgg a jiiñ. rien ne justifie tey Ousmane Sonko nekk ci kaso bi. voilà bu fekkee nag affaire contimence ba la. loolu moom beneen dossier lay. beneen dossier te nañ ci ñëw léegi nii. Hmm. Euh, kon da nga jàpp ni euh, moom président Macky Sall nekk na ci disposition mën a déglu lu mel noonu. Hmm. bàyyee ko xel également surtout boo ci boolee clameur populaire bi. moo xam fii. moo xam bitim réew ba ci sànq gis nga match Sénégal hmm. Cameroun bi ñu ngi félicité suñu gaynde yi nga xam te ñoo dóor euh, Cameroun ay benn bal ci dara Sadio Mané dugal ko ci ab penalty hmm. yaa ngi gis ci gradin yi libéré Ousmane Sonko absolument oui su dee ni loolu mu ngi law mooy da nga bëgg wax ne prise de conscience ci kilifa yi ci ne jot na pour ñu bàyyi ko loolu dina def dina def tentative te te te président Macky Sall hmm. bu ngeen ko seetloo fan yi ñu génn 2024 euh, Euh, Sénégal dañu ko génne ci commité des droits de l'homme bi nekk Nations Unies. oui 2024 bii du ci bokk. du ci bokk du ci bokk génne nañ ko ci. président Macky noonu Sénégal. Sénégal waaw. lu ah, tax ñu génne ko ci mooy euh, àq ak yelleefu yi ñuy salfaañe ci at yi mujj te loolu rek signal bu foor la. Hmm. ba tax na tey jii même président Macky Euh, su fekkoon ne Nations Unies comme lañ doon wax ca jamono yooyu. Euh, ne mën na am carrière sur l'international dont notamment le poste de secrétaire général des Nations Unies. Mm. le fait que ñu génne Sénégal ci comité des droits de l'homme bu Nations Unies euh, loolu rek day poser benn problème. Uh comprendre kon donc pour man euh, président Macky Sall war na mën a bàyyi xel loolu. Hmm. parce que Sénégal pendant longtemps dafa bokk ci comité bi ñuy rafetlu l'état de la démocratie.